أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله حسبي الله وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi nga xam ne ñoo bokk teew ci jotaay bi ñëw wuy si wooteeb Serigne Touba bi maa ngi leen di nuyu yéen maa ngi leen di nuyu jiital ci nuyoo bi ki fi toogal Serigne Touba ak jotaayam ki tooge jotaayam Serigne Touba nag. yaakaar naa ne ku yàlla dimbali la ba xol yi murid yi nga xam te ni bëgg nañu Sëriñ Tuubaa yëpp yëpp yëpp ku ko ca xool da ko fa fekk kon murid yi nga xam te ni seeni xol bëgg Sëriñ Tuubaa la caa nekk ba bëggaale Sëriñ Muntaxa ëmb bëgg Sëriñ Tuubaa la ko maa ngi ñaan ñëpp ñu ànd déglu ñaan gi nga xamante ni dañ koy ubbee waxtaan wi ñaanal Serigne Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir di ñaan yàlla yàlla nangul ko ñaan gi nga xam ni du man mii di ko wax maa ko ñaan waaye suñu mbokkum taalibe mu ñu wax Serigne Modou Sy moo ko taalifoon ca jamonoy Serigne Salihu doon ko ca ñaanal muy ñaan koo xam ci nag bu ñu yàgg xelal lool képp koo xam ci ni yéenal nañ la jàmm ak gudd fa ak wér rek. incha allah dina ko ñaanal damaa bëgg nag bu may jàng ñaan bi yéen ñi nga xam te ni soppee Sëñ Tuubaa ngeen te Sëñ Tuubaa moo nekk ci seen xol gi seen xol yi bu ñuy jàng ñaan gi ñaan gi amiin lay daanoo aw taarif la moo xam te ni ñetti bayit la rek waaye amiin lay daanoo bayit bu ma ci jàng ba ba àgg ci amiin rek dañu ñëpp ñu maase waxandoo amiin ngir yàlla nangul Serigne Mountakha mi ci toog jotaayu Serigne Touba yàlla nangul ko ñaan gi nga xam ne nii sëñ moo moo aussi moo ko ñaanoon ñu ko daal di ba Serigne Saliou kon Serigne Mountakha ñi ngi lay wax ne Serigne bi ñaan yi ñu lay ñaanal fi léegi feneen yàlla na buur yàlla nangu yépp amiina wax leen amiin ci kaw amiin Serigne ñaan yi ñu lay ñaanal fi feneen yàlla na buur yàlla nangu yépp amiin nooxin alayhi salaamullahi nam gudde aw fan safan yal na gudde amiin gudd aw fan safan yal na gudde amiin suñ muntaxaa yal na nga wér am njawar teg doomi ñeen fukki at saa yoo bëggee ñokket waaxu amiin yàlla na nga wér am cawarte doomi ñeen fukki at saa yoo bëggee jóg ne ñokket waaxu amiina di dem ca tool ya di dellu fii ci te waxtu yi fii ci jàkk yi ak ca yooyee jàkk amiin amiin eh, kon ñaan kooku la ñuy ubbee waxtaan wi tey ñaan yàlla niñ ko teewloo ngir yéene si Muntaxa gudd fan ak wér képp koo xamante ne teewla nga waxtaan wi ba li ñu bëgg àggale ci xol yi ñu bëgg sëñ Tuubaa ñu mën koo amee nañ ko bëggee yàlla la ci yàlla dugal ci njàngoo ku ne xam na loo xam ne bokk na ci ñi yàlla dimbale woon mën a gudd fan ñëpp eh, te wér it waxambaaneew ñeent fukki at naa bu ñuy natt dundub doomu aadama gi foofu la ëpp ëpp kon képp koo xamante nii déglu nga waxtaan wi ak teeloo mën cee jariñoo wala doo door sax beneen mbokku bi nit moo xam ne man na seen ba gën a cee jariñoo yàlla na yàlla dugal ci ñaan boobu dina ko dugal ñu rek ci barke Sëriñ Tuubaa eh, duñ ca sori ndax waxtaan wi xëy na waxtu yi gàtt na lool eh, yaakaar naa fanweeri minute la ñu jox ak yeneen fanweeri minute yoo xam ne si ñaari ma jaay ma war a waxtaan yaakaar naa buñ ci nuyoo bu ñu yàttalee nuyoo bi rek wax nuyoo bi kon day jël daal di jël waxtaan wi waaye nuyoo bi lu mu gaaw gaaw it mënuñoo ñàkk nuyu ñi nga xam ne ni ñoom ne yàlla dogal ñu jiite mbooloo mi taxawu liggéey bi ba bis bi taaroo nii mu taaroo ak it ñi nga xam ni cëral nañu ci ngir xool suñu ñàkk solo waaye xool nañ ba yaakaar na daal mën nañ cee wax lu am njëriñ ñu cëral ñu ci ci bis bi donte fukki minute la doon doon sax xeebuñu ko ndax fukki minute yooyu donte ñaan gi ñu ñaanal suñu taxaa lañ doon wax mu àgg ci xolam Euh, murid yi ñëpp yéene ko rek jar jar jar jaroon na ko kon nag bu ñu mënee wees loolu euh, conférence xaju fi conférence du fi xaj ci 30 minutes kon waxtaan danañ ko tënk ci ñaari tomb yu gàtt gàtt benn bi mooy danañ leen jukkil euh, ay tagg yoo xamante ni Serigne Mouhamadou Diaw Baxa dañ daan ko dàkkantale sultaanul aarifina wa mixrafatul aarifin e, foofu ngir fa tolloon ci xam-xam ak ak am ci yàlla moo taxoon ñu daan ko dàkkantale loolu e, te doon boo xam nit nag dara mosu koo ko mas a jombal rek moo ko mas a jombal e, kon bu ñu tànnee ay mbéy yu gàtt yoo xam te ni da koo ci Sëñ Tuubaa am solo bayit yooyu moo tax ñu ñu jukki ko ñaareelu tom bi ndénkaan lay doon ndénkaan ndénkaan loo xamante ni Serigne Touba bu ma saana toog ak fere yi muy mbokki jullit yi ak mbokki murid yi ak ñi nga xam te ni ñoo koy déglu daana leen ko dégg dana leen ci indi ndénkaan bu gàtt bu ko defee ñu daal di jox si ñaari bañ a gàddu gi xaw ma dana xaj ci 30 minutes xaw ma dama ci 7 minutes waaye rek ngeen talaax rek euh, yaakaar naa lu mu dee léegi di ngeen di demagul kon suñu Modou Diaw Daxa lu mu wax Sëñ Tuubaa euh, jukki yoon nañ ci ay yeneen jukki waaye yoo xamante ni yaakaaroon na ne bu ñëwee danañ am lu mu dee ñaari waxtu ci ci ci kanamu mbooloo mi loo xamante ni euh, lépp ci mbindi mbindi nit ñu baax ñi ña nekk Sénégal ak naar yi nga xamante ni ñoo nekk Mauritanie te xam Sëñ Tuubaa xam lim doon digg doon ko bàyyi fii bëgg bu ëllëgee ñun ñii fi nekk di man a xam dara ci moom ba mën cee jariñu moo tax ñu bindal ko ci moom waaye xam ne ne waxtu yu yaatu ba lañ ci jukki woon lépp danañ mën a jóg waaye wax si Mourou Diop Bakhar la ñu indi la ñu indi suñu Mourou Diop Bakhar dafa wax Sëñ Tuubaa ne ko yaa dafa wax waxul Sëñ Tuubaa direct sax waaye day wax ki nga xamante ni dafa wax ne yaa man yuriidu murabbiyan hal laa taji لمغيثنا شافي القلوب من العلل هل تكيد محمد محمد وهو الذي لا نبتغي منه بدل suñ mën nga waxal dafa wax suñ ma dafa wax ki nga xamante ni day wër ku ko éduqué éduqué buñ ko waxee mooy tarbiya tarbiya nag dafa euh, làmboo maanaam moo xamante ni dafa wóor ak yeneen baat yi ndax euh, da nga dégg ñu ne dañ koo enseigné kii ku ñu jàngal la nit ku ñu jàngal mën naa bañ a yar nit ki mën nañ koo jàngal ba mu xam lépp dafa jëfe lépp tarbiya nag mooy koo xamante dañ lu baax muy jëfee dañ ko jàngal mooy éducation yow bi nga xam ne da ngay wër ku la éduqué te ku ne xam ne Sëriñ Tuubaa murabbi la woon ab ku daan tarbiya la ndax ci jamonoom euh, waxoon na mag ñi ko toppoon ne ni koo xam ne ni jàng kese la fi indi mën ngaa dem seeti fi ku kuy jàng kuy jàngale waaye koo xam ne ni defaroo moo la fi indi te mu ngi tarbiya mën ngaa toog ànd ak man kon nit kii du ceeg di jàng rek moo koy def ndax bari na ku jàng te jëfewul la nag mooy koo xam ne da ngay jëfee lañ lañ lañ baaxoo lañ baaxoo lañ baaxoo jàng suñ mënu def baxa dafa wax ne yow mi nga xam ne da ngay wër ab murabbi ab yarkat ab éducateur xanaa doo ñëw ci kii nga xam ne ni mooy ki xettali ki ñuy xettali bu ëllëgee kii nga xam ne nii mooy saafara xol yi ci ay ràgg ba léegi tudd ko de waaye saa yu ko joxoñee rek ku ne xam kam tudd kam tudd kam tudd wax kooku mooy kan dane xalaa tajili muhammad ibnu muhammad muhammad mooy sëriñ Tuubaa la jël loxo ibnu muhammad doomu maam Mor Anta Sali wa huwa alladi laa nabtagi minhu badal moom de mooy ki nga xam ne nii lu waaye am mën na koo jiima saase leneen lu ko am waaye kenn mënut a am sëriñ Tuubaa di wut di wut leneen moo tax mu ne ko wa huwa alladi laa yabtaxi minhu balal mooy ki nga xam ne nii duñ ko am mukk di wut leneen luñ koy changé dellu tegaat ci mbay boo xam ne nii wa huwa alladi man jaahu mutabaayan li nga xam ne nii murid yëpp moom lañ def ci kanamu Sëñ Tuubaa mu ne képp koo xamante ni ñëwal nga Sëñ Tuubaa jaayanteeg moom day naala alladi yabqa jamian min amal la nga doon mébét la nga doon yaakaar ba tax nga ñëw ci kanamu Sëñ Tuubaa sukk fa di jaayante ak moom lépp da nga ko am doo ñëw mukk sa sa yaakaar sa yaakaar waaye nag mu ne ko lakinnahu képp koo xamante ni aw aaya la tax ak mbon ba tax nga ñëwal ko laqiya allazi yalqal aali min wajal lépp lu ab noon di tasee ak kam noonoo bu ñëwee ci Sëñ Tuubaa rek da ko fekk rek lépp la tax ñëw yi da ko fekk ndax boo ñëwee. lu baax yëkkati la da nga ko fa amee boo ñëwee am safaan yëkkati la it da fa jëlee loo xam ne nii euh, la nga doon dox bu sotti moo tax mu tëjee wax ñu ne ko fastamsiku ahla zamani bi hablihi nee na yéen waa jamono yéen ñi nga xam ne nii yéen nekk ci àdduna tey leen ci buumuk Serigne Touba is habluhu habla alladi nasaxal malal ndax tey ci buumuk Serigne Touba mooy tey ci buumuk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, loolu ay bayit la yoo xam te ni dañ ko daseeg moom sëñ Mouhamadou Diaw Baxaar tàggat ko sëñ Tuubaa ko euh, muy tàgg boo xam te ni dafa neex ci xol lool ci ku sopp sëñ Tuubaa moo tax ñëw gis ko xeewal ko doon doon ko waaye ndénkaan bi nga xam te ni sëñ Tuubaa toog na ak taalibe yi magi ak euh, taalibe yi nga xam te ni dañ ko toogoon ak moom tamay jukkiku fu wér te ndénkaane bi képp ku dem ca daaree kaamil ca Touba boo gëstoo euh, ci diiwaan ya fa nekk rek ci loolu ñuy wax diiwaanul fiq wa tasawuf diiwaanul fi tawxiid wal fiq yi wa tasawuf ku fa dem nag ci daaree kaamil ca Touba da nga fa fekk da nga fa fekk ci muy ndingaan bu am solo boo xam ne nii maa ngi ñaan yi yëpp bàyyi ko xel ndax dana amal njariñ fu waay nekk waaye rawatina ku nekk ci ab tukki fu waay nekk rek ndingaan yu amal na njariñ waaye rawatina koo xam ne nii da ngaa tukki te tukki bu njëkk liñ ko xamee woon nit ki tukki ngir sàmm diineem ngir dafa nekk foo xam ne nii faa xatal ba ba ba diineem faa. jëfee la mu ko bëggee mu génn fa ngir dem fu gën a yaatoo mën a dund mën a dund dina dinem kenn kon nag képp koo xam ne da ngaa da génn sa réew te objectif ba la yëkkati du sàmm sa diine ngir bañ sa diine dara manqué ña foo déggee dénkaan buy wax ci nu ñuy wattoo diine war nga koo bàyyi xel baax baax a ndénkaan booba ndénkaan euh, bu gàtt la gàtt na gudd na waaye dana njëkkante waxtu yi ba xaj xajal ko fi fa mu ko tàmbalee dane ala ayyuhal ixwaanu ayaa ayyuhal ixwaanu laa tuhmilu dahra wala tansawu dayyaana sirran wala jahra eh, ku ne xam na ne message bi ma ci njëkk joxe bu fekkee da nga tukki kenn ci ñun du xëy di tëdd sa kër saa yoo xëyee rek am nga foofu rek amee bu fekkee da nga war a dem liggéey bu fekkee da war a am sériya boo war a euh, dem wala ngir la la tax a indi la la indi ci réew mi nga mën caa àgg noonu la la ñu loolu la di ñoree ni la ñu Sëriñ di soññee ñu bañ a sàggane waxtu ñu bañ a sàggane suñu taam nee laa doxu bitu dara nee na yéen fere yi yéen mbokk yi yéen sama mbokk yi te bu ñu moom bu tuddee du mbokk bu tuddee mbokk rek tudd tudd mbokk mbokk deret képp koo xam ne nii bu de bu sëñ Tuubaa tuddee mbokk rek mbokkum laa ilaha illallah la jubloo wax waaye nee na yéen ñi nga xam ne maag yéen ñi yéen ñoo bokk di wax laa ilaha illallah laa tox mi du doxraa nee na bu leen perte seen temps perte sa temps mooy lan mu ne wala tan sawu tayyaana dëhran wala sirran wala jahra mu ne bu leen fàtte yàlla mi nga xam te ne lu waaye jëf ëllëg dara ko fay at day yaatu xam te ne lu ma waaye moom du ku ñeme bor la loo ko lebal dana ko fay. bu leen fàtte yàlla moomu ci lu nëbbu bu leen ko fàtte ci lu feeñ nañ topp baax a baax a baax benn dingaan boobu day dem yow mi nga xam ne nii naag yow dina bokk laa ilaha illa allah bul defoo ci lu yàlla wala te bu leen fàtte yàlla mooy lépp loo mën a nekk na nga xamante ni na sa ci yàlla la ngay def na yàlla tax nga di ko def la ngay bàyyi na yàlla di ko def bu dee lu feeñ la bët bët mën caa tegu bu dee lu nëbb la ba bët ba bët mën caa tegu mu ne wala tuhmilul alqaada bil wa fara nee na bu leen bil akli wal kara nee bu leen sànq bu leen neenal waxtu yi waxtu yi jàll ci yéen bu leen ko neenal ci bari lekk ak bari nelaw wa taksiri masxil qawli bal kasiru dikra nee na bu leen baril wax joo xamante ni amul njariñ masxil qawli mooy wax joo xamante ni waxi caaxaan la rek ni ko ñu bari ñun tàmmee ci buñ toogee ci jotaay boo xamante ni dafay jàng alquran wala jotaay boo xamante ni dafay jàng xasida wala waxtaan boo xam ne wala jotaay boo xam ne dafay fàttali yàlla ak mbi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbindu mag ñoo nga xam ne nii Eh, yàlla ak yonent bi la ñuy wax nee na bu leen baril waxi caaxaan euh, ci bu ngeen nekkatee ci jotaay bu ngeen demee wax amu leen lu ngeen wax bal kasiru zikra na ngeen baril lu ngeen tudd yàlla la dañuy bayit woowu teg ci ne wa man ahmala al awqaata fi gayri taatin fa safa yulaaqi llaaha fastaamilul fikra nee na képp koo xamante ni neenal nga waxtu yi ci lu dul topp yàlla ci ay caaxaan kese da nga dajeeg yàlla te bu baax da nga da nga rëccu la tax nga doon neenal waxtu ya na ngeen na fikra mooy na ngeen jëfandikoo seen xel da ngeen jëfandikoo seen xel waxtu wuy dem na la yóbbaale dara waxtu wuy dem rek na la yóbbaale dara waxtu yi boo fekkee da ngaa toog ci jotaay bi di perte waxtu yi muy dem au moins na nga na nga teewlu sax déglu. ñu fàttali la yàlla fàttali la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàttali la mag ñu baax ñi nga xam te mag ñu baax ñi mooy moom kon euh, ñett ñeenteelu ba yi mu teg ci woon wa man laqiya rahmana jalla jalaaluhu bi xayri lhuda yahlik wala sufra nee na képp koo xamante ni da seeg mu màgg ma te yóbbaale woo fa ak jub da nga aal ko alal alkane goo xam te ni doo xam foo ko waxee mu tàmbalee ci lim jikko yi nga xam te ni ñun xëy na nit ñu bari moom la leen la too ngir ñu mën koo moytu yam ca jiital tàmbali ko lim na ne wa man laqiyal kibrin maa riya yuazab bi adlillahi fastabidul na képp koo xam ne da ngaa dem ba taseeg di kibri la wax rëy rëy Sëñ lool ndax xam ne yàlla rek rëy nee na képp koo xam ne da ngaa dem ba des ak yàlla yóbbaale ba rëy nga nekk woon ci àdduna bii ak ngistal li nga xam ne nii di jëf yàlla mosu tax nga di ko jëf waaye doomu moo tax nga di ko jëf te rëy yi dinaa leen ci misaal lenn am na lu ci suñu plan waxoon dafa waxoon ne misaalum ku rëy moom Euh, arab yi ñoo koy faral di wax sax dañ ne misaalum kuréel yi ni ñu koy misaale mooy mi ngi mel ne ku nekk ci kaw rek ku nekk xam na ci ñun ne avion tuutiwul avion ku ne xam na ne tuutiwul ku dem ci aéroport bi ba taxaw seen aéroport bi ci suuf da nga xam ne avion tuutiwul waaye képp koo xam ne da ngaa seen avion muy naaw ci kaw dañ koy gis mu tuuti lool lool lool lool ba mel ne am picc sax léeg-léeg sax mu naaw ba yàgg dootoo dootoo gis avion dootoo gis dara day mel ne niir yi lool moom ko yóbbee fam fam àggee diw ma ma àgg kawe ga ma àgg rëy ga euh, misaal la ci rëy rek waaye nag ki nekk ci biir avion booy xool nit ñi nekk ci suuf it day nit ñi dañuy tuuti ci ñoom lool lool lool lool ba mel ne ay picc kon rëy noonu ñi bu fa nga nekk kawe gam kawe moo tax nga xool ñi nekk ci suuf ñu tuuti ci yow lool na nga ne ñi nekk ci suuf yi tuuti ci ñoom lool moo tax sëñ Tuubaa ne wa man laqiya mawla bi kibrin maa riya ku yóbbaale fa yàlla ak rëy ak li nga xam ne nii da ngay nangu boo ko sant jëf yàlla kese taxul nga xam ne doomu aadama yi teew ak ñu wax ci yow moo tax nee naan ko jëf yu'azzab bi abdillahi fastabaa kidaal nee na bu boobaa dees na la caw ci maandoog sunu borom na ngeen sori ak rëy nee nañ bàyyi xel baax a baax nee na wa man saahu an yadxula naara fii xadin nee na képp koo xam ne da ngaa ragal sawara bëggoo dugg sawara falaa yaxsi mawlaana wala yakfuran kufra nee na képp koo xam ne da ngaa ragal sawara na nga moytu mooy yàlla